Imam Ahmadou Mactar Kanté ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay nuyu di nuyu équipe réew mi yëpp. Mm-hmm. ngay écrivain conférencier waaye it expert en environnement et économie solidaire waxtaane actualité mu am ay kàddu yi nga xam ne euh, ki jiite woon DER di Pape Amadou Sarr yëkkati na ko euh, coow li topp ko tey ban commentaire nga ciy def imam man de li ma gis ne moo tooñ boppam parce que dama gis ne euh, wax bi boo seetee li ci bëri du dëgg leneen li l'islam moo ko jàngalee noonu euh, bu fekkee gëmuloo ko wala doo ko jëfee nga respecté ni islam moo ko jàngale àddina noonu lay doxee parce que bu dul loolu fitna dana fi bari euh, bu ñuy woote tolérance ak nangam nangam mooy loolu euh, beneen bi mooy wax bu ñàkk teggin bi ak ñàkk kersa bi mu ko booleel yéeme na lool doy na waar lool tudd ci sax ay kilifa diine yoo xam ni dañ leen fonk fonk warmaal leen fii ci Sénégal comme réew mu nekk am nañ seen i nit yu ñu fonk donc man mënuma comprendre koo xam ni sa liggéey mooy euh, gérer ay fons e euh, pour sénégalais yi femmes yi ak jeunes yi nga ne fa ñukk loolu di wax ay waxu lu tax jigéen di julli ci ginnaaw góor ak lu tax jigéen loxo jox loxo góor te bu guddee jigéen téye ma fan ci góor yoo xam ñàkk fayda yooyu donc moo tooñ boppam li mu def nii dafa ñaaw lool ba pare euh, président la république lii arrangé wu ko mënuloon ñàkk a tekki ndombo tànkam parce que waa ji man xawma lu ko dal mais li li mu def nii man jaaxal na ma lool. kon yow jàpp nga ne euh, bu weesoo diine gi mu euh, gi mu gi mu gi mu gi mu attaqué euh, dafa ormaalul tamit jigéen. ormaalul kay jigéen parce que boo gisee déjà lu fekk mu muy muy muy muy gën a concentré wu ci ci jigéen ñi nangam loolu ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam sax du moo ko tëralee noonu donc charia moo ñëw wax ne jullit yi bu nuy julli. góor ñi nañ nekk ci kanam jigéen ñi nekk ci kanam eh, jigéen ñi nekk ci ginnaaw jigéen ñi sax may nañ leen ñu ñu ñu ñu julli seen mbooloo jigéen jiite xay na moom yooyu xamu ko parce que xamu ko parce que tooñ la jublu woon moom sax wax ko ci commencement damay def provocation fekkoon ni xam-xam rek la jublu woon ak ak jubbanti yoo xam ne dafa jàpp ne jaaduwul wala tegoo ci lislaam kon nag génne ci xam-xam mais deful waxul xam-xam dafa def ay li tubaab di wax ay jugement de rek la def tegale lii baaxul lii jaaduwul lu tax ñuy def li jigéen lu tax góor ñi lii lu tax ñeene lu tax ay ñu ay kilifa di def lii ba ca guddi ñu leen di def lii wax yu ñàkk fayda la wax dëgg yàlla xam-xam taxu koo jóg jooyanti ay yoo xam ni mën na doon njuumte julli ji di ko jëfee loolu yëpp xam nañ ko mën na nekk debaa bu sérieux mais li mu def nii moom tooñ la ñàkk war ma ci lislaam ak kilifa jullit yi ak sax jigéen ñëpp euh, jullit yi ak góor ñi donc wax dëgg yàlla man xaw ma lu tax mu bàyyi li nga xam ni mooy liggéeyam nga xam ni foofu la ko Sénégalais yi di xaar nga xam ni loolu moo tax président ki nomme au poste civil et militaire nommé ko ci post boobu di ko fay lu am solo pour mu liggéey mu bàyyi fa loolu di dugg si ñàkk fayda yi ba dugal boppam problème bu mel ni imaam gis nañ ne de plus en plus dañuy euh, gis ay dérapage jëm ci discours religieux bu ñenn ñi di yëkkati ndax da jàpp ne ñàkk xam la wala rek euh, manque de respect. waaw yooyu yëpp mën na ci am. xam nga nit dafa lëndëm. Mm-hmm. donc lenn li ñàkk xam lay doon ñàkk xam nag li koy faj mooy jéem a xam waaw ñàkk xam nag ba pare te xamoo ni xamoo wala nga yaakaar ni da nga xam di wax la neex euh, xamadi dana la dab. Mm-hmm. waaw yaru xamadi dana la yar loolu lenn la euh, te it toog ak say nawle wax xam ne ñëpp xeeb nañ la parce que xam nañ ne du xam-xam lool tam kuy gor euh, nekk mukallaf war nga ko moytu parce que li wax ci lislaam nii képp ko xam tuuti ci lislaam di nga xam ni xamul lu xew. te nee na jullit la beneen bi euh, mooy que euh, ñàkk respect loolu ci nit la rek ci nit nit ki bu fekkee ni yaruñ ko wala bëggut a yaru euh, mu réew ëppal dégg nga xamadi ko kenn mënul dara ci moom muy ci lislaam muy ci leneen dana wax lu ko neex. gis nga fii gis nañ fi ñu bëri gi ñuy xasante fii te diine taxul politique moo tax wala àdduna wala leneen kon loolu ci nit ki la. mais nit ku yaru moom yaru na rek. buy wax ci diine jàmbur wala muy wax ci politique yaram day feeñ. bu mhm. fekkee dafa réew nag xamadi leneen lu muy waxtam tamit da daf ciy feeñ. lii mu wax na ci lislaam moo wax dëgg dëgg ñàkk teggin moom euh, ak yabaate mi ci. au sens propre euh, imam boo doon euh, boo ñu doon firil tey diine ak jamono nan lañ ci mën a comprendre. diine ak jamono ñooy ànd mënuñu tàqali ko mhm. <clears throat> moo tax nag Seydi Lamine Ndiaye ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana bi mu defee émission boobu dafa bëggoon woo ay borom xam-xam ñuy waxtaanee xew-xewu jamono. Mhm. di ko jàngat ci l'islam amul lenn lu l'islam bàyyi. amul lenn lu l'islam bàyyi man souvent dama koy wax ci français dama naan eh, rien de ce qui est humain n'est étranger a l'islam. Mhm. Mhm. xam nga ku lay jàngal booy dem toilette nooy def. kooku du bàyyi dara. moo tax islam wax na ci politique ñu ñu yore réew wax na rafet ak jikko ñaaw wax diggante jëkkër ak jabar diggante doom ak waajur diggante dëkkandoor wax na ci wàllu koom e tere riba na ngeen wut alal bu leen tàllal loxo tere na euh, yalwaan euh, tere na jël yëfu jàmbur bàyyiwul dara dara dara dara kon nag concept boobu moo ànd ak l'islam mais nag yàlla na fekk ñi koy waxtaane ñu xam li ci l'islam wax mm-hmm. ba it li xew ci jamono tam ñu xam lan la boo ci manqué rek indi njaaxum maanaam bu fekkee xamuloo l'islam ba pare di wax ci jamono di indi ci l'islam loo xam ni Euh, du loolu nga war a indi bu fekkee tamit xam nga l'islam te xamuloo jamono. Mhm. di nga di nga jël lislaam di atte loo xam ni du loolu mooy dox ci jamono kon lu sérieux la loo xam ni war nañ ci bàyyi xel. jàpp ne imaam dañoo topp euh, jamono ba fàtte gëstu suñuy diine. ah loolu kay moom moom moo ñu dal ñun ñëpp ni <laughs> ah man de bokk naa fi xam ne fi nekk nii léegi daanaka damay dajeeg ay nit ñu naan ma foo nekk ci dëkk bi. man leen waaw damay làqu tuuti rek waaw pour waaw pour gën gëstu. Euh, bañ trop d'influence euh, parce que fu nekk nii boo bëggee dara du la rëcc ci liy xew. Mhm. ak groupe WhatsApp bu nekk nga bokk ci. vidéo bu nekk nga ne lan la ah chaîne chaîne bu nekk nga abonné ci ma ne la dañ lay dañ lay dofloo dañ lay dofloo surtout que li li ëpp liy circulé ci àdduna bi actuellement ak les réseaux sociaux euh, daanaka la ca baax am na lu ci baax de ak njëriñ waaye bariwul noonu de. Mhm. kon nag boo xamul looy tànn ak nooy def dañ lay kànn suloo léegi nag euh, loolu moo tax euh, fi mu nekk nii nit ñi gën a jiital li xew ci àdduna waaye duñ ko jàngat ci ci seen diine te tam seytaane euh, loolu la bëgg. nga jàpp ne nan la ñuy def ba wàññi dérapage yi nga xam ne jàpp nañ ne boo mayul buzz bëgg buzz ci la bokk tamit. waaw bëgg buzz ci la bokk yi bëgg damaa ñeme damay wax lu kenn xamul wala lu kenn mësta wax. xam nga léeg-léeg dof mooy def noonu xam nga dof mooy jékki-jékki rek ngeen baal ma kàddu bi sax ci dof bi. Mhm. mais wax ko neex mais nit ku am xel doo wax lu la neex bokk na ci xel ngay wax lu xelu. Mhm. loo xam ni xeebuwul loo xam ni ku ko dégg euh, même bu jubawul ak yow dana xam ni wax bi am na worma. Mhm. dana xam ni wax bi fi nga ko teg fan la. loolu c'est important. mais dof rek mooy sànni waxam nu mu ko neexee ñu wax la nga ne dama am fit euh, lu ma ci fekk ma jël nangam ak nangam yooyu yëfu kan na so dëgg dëgg la. donc léegi Euh, li am solo mooy loolu léegi nag dafa am loo wax lu am solo. Mhm. mooy gis nga wàññi. Mhm. parce que gis nga lu mel nii du mës a jeex ci àdduna. Mhm. maanaam euh, am kan moo doon wax euh, ci wolof dañuy wax ne penc bu amee jàmm rek am na ku fa xam njaaxum bu mu noppi. <laughs> waaw gis gis nga foofu nga nekk noonu yow réew mi nga nekk noonu. Uh-huh. am na yoo xam ne da nga ko fay jéelale bu dul loolu rek fitna am chaque jour. dëgg mi ngi noonu kon nite mooy loolu mais koo xam ne lu la neex nga wax te li ma rajax rek ñu naan dafa ñeme dafa dëgër fit moom ko gis nga. Mm-hmm. léegi nag euh, kon te tamit lii kenn mënu ko anticiper maanaam mënoo topp nit ñi. mais chaque fois rek li ñuy wax ñëpp day tegu ci yoon te du ci am loolu tam amul fenn ci adduna mm-hmm. nit tamit mu noonu kon nag li am solo mooy ku nekk nga yar sa bopp seet li ngay wax balaa nga koy wax nga seet lan nga ci jublu mm-hmm. ak wax bi lan nga ci bëgg a defar ak nu mu war a tegginoo ak yooyu loolu moom ku nekk yaa ko war a ko war a lijjanti d'abord à ton à ton niveau mais tamit bu fekkee wax nga lu jaaduwul. nit ñi tamit wan la ni lii jaaduwul ci teggin euh, delloo la fi ñu la war a delloo. ñu wax ba tey ci actualité mu amoon euh, benn délégation imam njiitu réew mi dalal leen ca pale bañ ca génnee ñu jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax contenu euh, la leen yóbbu ca palais mbir mi jur coow tey tamit ban commentaire nga ciy def imam. waaw ñoom tam ñoo indil seen bopp coow gis nga ku nekk boo yemee fi nga war a yem rek. Euh, coow du am euh, association imam euh, ay kilifa lañ bokk ci réew mi diine am ci solo lool kon président jokkoo ak ñoom woo leen ci waxtaan loolu jaadu na gisuma kenn ku war a mën a jam lu mel noonu wala di ko dingat mhm. léegi problème bi mooy ñoom ba nu génnee la ñu wax moo tax xelu nit ñi tey parce que comme dañu nekkoon ci benn xeex ci wàllu borom ñaari tur ñu bëggoon ko gën a dooleel ci wàllu loi durcir ko criminaliser ko ñoom association boobu signé nañ proposition de loi boobu. Mhm. kon mooy d'accord nañ ci. Mhm. ñu dem président wax ñoom ñu génn mel na ku bëgg a wax leneen mel na beneen double discours. bëgg a wane ni dañuy bëgg a ànd ak président euh, di ko layal euh, ci ne euh, soxlawul ñuy criminaliser te ñoom ñu signé woon ko loolu moo tax nit ñi commencé di am jeexi jaaxa ci ñoom. kon mhm. ñoom ñoo tooñ seen bopp foofu. léegi du ñoom ñoo war a communiquer président ay millions yu muy fay ay nit yoo xam ni affaire communication lañ koy liggéeyal. Mhm. ñooñu nañu dem waxal ko li mu bëgg wax. Mhm. kon ñooñu ñoo ñoo ñoo tooñ seen bopp ñoom ci ñoom tamit ci ci ci masala boobu. Imam Sànk ci suñu ndorteel wax ñu ngi lay présenter en tant qu'expert en économie solidaire tey ñu bëggoon a nga wax ñu tuuti euh, ci euh, finance islamique ndax gis nañ ne Sénégal euh, liñ ko fi tudd bëriwul amaane na banque yi nga xam ne mën nañ cee jëflante du bëri tey lan moo waral law gi mënuñu ko gis ci mim réew waaw xam nga lu tax hmm. parce que parce que déjà loolu bi bi ko julli di commencé yëkkati Euh, yàggul. Mhm. ba ci pays musulman yi nga xam sax l'islam dafa fa dëgër ci wàllu ci wàllu charia ci état bi. Mhm. sax boo demoon ba ay Arabie saoudite yi ngay gis nii euh, affaire banque islamique yi ba mu fa commencé yàggul. yàggul parce que euh, ñoom seen bopp tam bi ñu duggee ci affaire économie internationale ak pétrole beeg yooyu. Mhm. seen alal yëpp day jaar ci li tubaab ci seen banques yi. jaxasoog riba yëpp. ba fi nekk nii sax ñu ngi jéem léegi ak lu mel ne banque islamique Euh, di jéem a euh, dajale jullit yi pour waxtaanee ñoom nañ wut ay circuit yoo xam ni seen alal du du du du jaxasoo ak riba. Mhm. parce que jullit euh, day bàyyi xel loolu. Mhm. gisoo même la même chose xam naa du ñàkk beneen yoon kooku beneen thème la encore xalaal bi lu mel ne par exemple ñamu xalaal nu ñuy reyee mala yi li ñu li ñuy lekk yëpp nii am na ci yoo xam ni. ay kii la ay ay porc la. Mhm. je n'ai rien contre ñiy lekk poor te te gëm na dagan na ci ñoom mais dama wax ñun jullit yi comme waruñ koo lekk waruñ ko dugal suñu biir euh, ay ay bonbon ñu koy jox suñu doom. yu mel noonu allusion aux charcuteries médicaments euh, bonbons. voilà hmm. kooku tam beneen ngandam tem la. beneen ngandam tem la am na ñoo xam ni ñu ngi ci góorgóorlu raw ci Sénégal bu baax a baax Sénégal nag moom euh, julli di fii dañu tardé ci yu baree bari parce que seen jokko ak les questions internationales dafa dafa dafa kii dafa dafa xaw a faible seen culture islamique dafa faible moo tax am na yu bëri yoo xam ni day xew ci yeneen pays musulman ay ati at da ngay tukki dem fa rek mais xam ko mais Sénégal ñoom daanaka duñ ko duñ ko yëkkati. kon mhm. finance islamique mi ngi commencé am solo waqf bi waqf bi mi ngi commencé am doole temps yi rek gis naa ay benn famille religieuse bu def benn immeuble de xaw ma ñaata étage euh, pour def ko waqf euh, gis nga léegi finance islamique am na fii ci banque islamique du Sénégal mhm. am na PAMECAS aussi am nañ benn guichet euh, et cetera donc je pense que Touba aussi am na fa institution financière yi commencé dëgër donc yu mel noonu buñ koy gën a lawal ci réew mi. julli di gën di ko waxtaanee bu ko defee seen alal euh, mën a dugg ci circuit bancaire boo xam ni li ñuy bañ ci wàllu riba. Euh, bu lépp jeexul tamit dana dana wàññeeku. Imam Ahmadou Mactar Kanté euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi jaajëfal waa di leen encouragé. waa rajo réew mi laa bëgg a wax mais donte woon ci biir réew mi ngeen bokk nag waa bu baax sax. <laughs>